amma suli ma bisa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin amma baadu fa haasa alyowmu yowmu alciid li kulli muminin muslimin muxsinin saciid fashkuru allaha tabaraka wa taala fiihi ala kawnihi suroran linnabiyi wa liman yaqtafiihi salla wa sallama alayhi llah fi aalihi wa sahbihi wa kulli man talaa wa uusiikum fiihi wa bacdahu بملاسمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات fa tuuba liman laa yaltafitu ila xayri rabbi mulaasiman maxtiira lahu min muniiri lubbi wa waylun liman qaadahu iblisu ila ma shaa fa innahu yulaazimu ma axza wa asaa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataakum arrasulu fa xuduuhu wa qaala allahu tabaraka wa taala wa man yaxmal misqaala daratin xayran yarah fa tuuba liman axada ma ataa bihi rasul alayhi bi alihi wa sahbihi salaama muti suul wa lilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr laa ila alkadari wa dayr wa waylun liman ya liman lam yaxus ma ataa bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bintiqaa wa uusikum ayuha al ixwaan li wajhi man kafaani dawi al asadi wal udwaan bi an laa tufaariqu maxtiira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajurru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fi'li kulli ma lam yatabayyan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ila xayrikum al ajra wa rida wa sawaaba wala tatlubul karama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu alizzata min xayri alazizi almuizz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi alaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwah tarakahu maa nafsihi wa hawaa wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kullama kaana yartaqi ilayhi min aljamila yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum ittaqillaha xaysu kunt man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baaraka anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fihi inda mumiti mayti wa anna man lam yatab lam yatub minhu tawbatan nasuha faqad damarahu man waadahu nasiha rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufun rahim jur yi fi teew yëpp bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ci seen sant di jël kàddu gi ci turu sunu kilifa gi toog muy sëñ Aliou ndax mu la mooy sama kilifa moom sëñ Mamadou kilifa kon bi wax fii moom kàddu gi moom la ñeel nee naa ko léegi lu jublu yow la waaye lu ciy dëng man mii la ndax boo teewee wër maa tekki di wax ndax bu ñu la laaj sëñ Mamadou lañu waaj laaj ko man bu yónni man man yor yoon ma dem kàddu gi damaa ngi jégalu ndax yi day man dafa bari tey jii lab yu ñàkk leer am na ci ñàkk xam-xam bari na ci am na ci ak doon gone ci seen kanam doon na ci ak nit ki toog kilifaam di wax itam lu day waar la waaye xanaa damay jëfandikoo rek yonent yàlla e, Moussa waxoon ci sunu borom subhaanahu wa taala ba ko nee wa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa qaala hiya asaaya atawakkalu alayha wa a'uuzu bihaa an axtamiya wa liya fiihaa maa'in uxraa loolu mooy it itnaab ngir ku toog sangam di wax ay wax toog nga toog mu lay xool nga di ko xool loolee ci boppam dafa mel ne bànneexu la ci ñun moo tax ñuy wax waaye ñuy nuyu mbooloo yépp ci ki nga xam ne moo fi nekk ba jëw di sëñ jàlle ko suñu kilifa gi nga xam ne ñoo fi teewal mu sëñ Abul Baraka nga xam ne dañ wax ne kenn ku ne sa sa sa njiit ci berab mooy mooy sa sëñ Aboo moo ñu yilif ñun ñëpp sëñ Aboo suñ mu taxaw ko yilif kon ñu nuyu tuuti suñu aboo moom yi moom ñu nuyu tuuti suñu Muntaxa bi nga xamee ne mooy jëwriñ Sëñ Tuubaa ak njaboot Sëñ Tuubaa gépp ndax yoonu murid moom benn kàddu rek la am bu borom kàddu ko xasee wax rek kenn amatu fi kàddu mel na tey jii kon li war a waxtaanee mooy fàttali li nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy jëwriñ Sëñ moom lay dinkaane moom lay fàttali ko te mooy mbirum jàng ak jàngalu dafa mel ne yàlla alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee jàngal la ko di ko wax mel na ne xam-xam kon day lu mënta ñàkk ci yoon yi yoon yi muy xadim rasul ku ne xam na ne ab jàngkat la woon jàngalekat la woon kon sëñ bi joxe na ndigal ni ñëpp farluwaat dana ci àdduwa yi delluwaat ci kaggu yi fa yéene fonk xam-xam te jàng ko jàngalu ko jàngalu ko ndaw njaboot gépp ba tax na muy naal liggéey bu réy bii ñu ñaan subhaanahu wa mu dimbali ko ci mu àgg ci loxoom te ñu ànd ko ñoom ñëpp ñu ànd ko ñoom te jariñu ci jariñu la ci wax ne nañu nañu nañu yara ndaw yi ndax sa alayhi wa sallam moo waxoon na ngeen sàkku xam-xam minal mahdi ila lahdi lu tàmbali ci ba ngay nekk ca laytaay gi ko ba ngay tàmbali ci kos bàmmeel nga xam ne ki mooy jaat ga bi kon bàyyi fi xam-xam daa mel ne xaju fi xam-xam nag ci boppam du càggee liggéey ci téer rek liggéey nag ci borom xam-xam wax ko muy lu baax loo a tan gis dañ ko sa xel xam-xam la xam-xam mooy bis boo boo xëy rek xam loo xamutoon rek bis boo xam-xam waaye dama adam bala ma sàkku xam-xam ma nappi la war a jëkk sàkku mooy na xam boppam ma nappi doomu aadama bu xamul boppam du du mën a xam dara xam sa bopp mooy li nga njëkk wax mooy kan maay kan man maay doomu aadama doomu aadama mooy kan mooy ki nga xam ne mooy kuutaay yàlla subhaanahu wa taala ci kaw yi ci kaw suuf nag wayfut responsabilité bu rëy xam ne xam nga ko war ngaa xam ne yàlla yan na lu diis yan na lu te bala nga xam sa ci da ngay xam lan lan lan lan mooy doomu aadama doomu aadama ci boppam boo ko yàlla bindee tën ko ci asal muy sayyidina aadama malaayka yi di ko romb day jor càmmoñ kenn xamul lu mu ñu laaj ko sama borom liirum doon mun ne kii day maa ko bind ba mu ba mu namee mu yàgg suuf ak fu mu xasee jaar lépp am na guddal di ko jaar ndax waxtu yi daa xat te daa mel ndokk nday xëy guñ dëkk yu mel noonu moo tax duñ duñ duñ ko détaillé du ko du ko guddal mu wàcce ko suuf mu ne ko jox yàlla da nga yàcc koo xam ne suuf si bu wàccee da yàq suuf yàlla ndax xam naa ñuy xamut kon doomu aadama bu yàlla wàccee mu muy kuddaa ji kaw suuf kooku ci boppam jox nañ ko lu rëy rëy loo xam ne war na caa war na ko bàyyi xel kon ñu njëkk xam suñu bopp ba noppi bi nga xam ne suñu bopp ñooy ñooy ñoo wut yàlla ci kaw suuf yàlla waxut ne malaaka yi wuti ko suuf si yàlla waxut junne yi wuti ko suuf waxut rab yi waxut wuti ko suuf waxut garab yi doomu aadama la yàlla mu toll yàlla moom mu toll yàlla na responsabilité bu xam ne nga jàng ba noppi nit ki bu jàngut du xam lu mu nar may wax ne ñeenti mbir koo xam ne bëgg ngaa am sa àdduna baax sa alaxira baax war ngaa góorgóorlu ci ñeenti yooyu bu njëkk bi da nga am fulla ndax ko am fulla ku jóg fayee la beneen bi na ngeen jàng ndax ku amul xam-xam ku jóg na la nax beneen bi na ngeen amul fit ndax koo xam ne da da ngaa ragal lu di ko xëpp la cee xel ngi dëkk te ay xel dëkk beneen bi nañu nañu nañu nañu doylu ndax doomu aadama bu réeru ku jóg mën ko jënd kon ñeent yooyu ku ne war ko bàyyi xel as euh, gor nag mënut jaay boppam parce que ngor ngor ku ku ne jaay na ko rek am ko woon ndax du du jaay ndox ngor mooy ak taalibe bi mooy jom bu ko jox sa sëriñ bu ko jox sa koo yaakaar ndax boo ko xasee joxe desewut dara am na suñu maam ju baax ju ñuy wax sëñ Mor Khary si mos naa wax ne sama suñu tuwaay sama lépp ma ne sama sama sama sama ngor ñu ko la tax boole ko ci mu ne ko lu mu war a daa ci ci boobu ngor kenn ko jox kenn boo jox su sëriñ ngàbb ko ndax moo ngay moo ngay sàmmee sa taalibe moo ngay sa diine nit ki am na ngor bo am na taalibe nit ki am ngor am na waaye nit ki amul ngor amul taalibe amul jom kooku amul du murid du du ab julit kon nañ ko bàyyi xel baax baax lu ñu jox suñu sëriñ loolu bu ci bokk yu gën a góor lu baax a baax tax ci ndénkaan yi borom dëkk bii tey xoolaat suñu jikko yi ndaw ñi nañu wax normal mag ñi mag ñi nañu yërëm ko day ndax àdduna yàqu gi dafa bari lool di yàqu nag li jëkk yàqu mooy jikko yi fekk defoon jikko yi ba jikko yu baax lenn du fi du du baax di sëñ bi xutba bi léegi liñ jàng jàng nañ ci lu bare bari ndax wax na ne texe tubaab tudd ko ñaari yoon du ci wéy lu ñaari yoon bi texe lay firi bii alkan lay firi ter bu njëkk yi dafa wax ne képp ko xam ne bëgg nga alaxira nga am li nga bëgg ak ci nga jëm temps sans moom mooy mooy da ngay da ngay jaam yàlla topp ci sa sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam képp koo xam ne seytaan yi la womat nag amoo kilifa kooku ci iblis la womat te su bopp nga ba topp ko man sa man faal man sa laqi man sa ku def la ko soob desee la ko soob la la ko naqari kon ñu gën a góorgóorlu ci góorgóorlu ci ndaw ñi euh, dimbali leen euh, taxawu leen samp leen ba nga xam ne ëllëg si biir bu fi jógee ñoom ñu mën a ñu mën a ñu mën a wéy li xam ne moom la suñu suñu bàyyi woon tey euh, wax ne euh, li li li ñu bëgg a wax lépp yéen ko ci xol waaye bu ñu wax ci làmm euh, te ñu diisoo di waxtaan ndax kilifa ba ki rek defe naa am na lu ñuy wax dialogue national ci ki wax ne moo jiite réew mi woote woon na fi ab mbir mbooloom ba dem am suñu kilifa suñu mbokk bu baax mu siyaaba ba bi yàlla ko yàlla doon sutura dégg ko teew na fi wax na wax joo xam ne ñëpp dégg nañ ko ñun ñëpp sant ci lool ndax jëf jooju suñu tuwaal ko jëfal xam xamal leen ne amru ilaahi la Sëriñ Muntaxa woote amru ilaahi mooy ndigal yàlla ndigal yàlla nag mooy yàlla moo ko waxoon alayhi salaatu wasalaam ko ne fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum wala kunta fazzan xalisa xalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaxfir wa saabirhum fi amri fa izaa azamta tawakkal allah musaawara dafa baax mooy diisoo sa kër gi nga yor sax da ngaa war toog yàgg woo waa kër gi diisoo la kenn ku nga xam ay mbiram koo xamul koo toogul waxtaan moom doo xam nekki moom li ñu ne kumpa daal te lu ñay réew na xamul amul ñàkk waxtaan njaboot boo ko amee da ngay nawlante moom donte yaa ko jur xamal ne sama nawle la ndax doom du moom lay jublu du moom la kon nag boo amee si doom sax da ngaa war a toog waxtaan moom ngeen lenkante nga di ko mu def lu baax nga di ko tere mu def mu bàyyi sawaan ba kon loolu mooy mooy mooy nawlante ci ak di diisoo kilifa gu ne war ña nga yëngu fa ngaa toog ña nga wuyu sa ñoom ne boo dem waxtu jot bu mel ni bii waxtu bis bii ak bis yeneen màggal yi yu mel noonu war nañoo dajale njaboot gi. yeewaan leen dinkaan leen wax leen ñooy kan ak lan moo tax jóg su ko defee bu ko defee liñ suñu jar na wàcc waaye bu ñëpp ne càll kenn waxut ndax ñu wax ñaar rek am ki war a wax te waxut ak ki war wax te wax ki war a wax te waxut yàq lu yàq moom ki xam daa wër te wax ba noppi di wax ne kooku tamit lu yàq moom la kon ñaar ñu kenn ko def naa moytu li nga xam ne moom moom moom ngay def kon ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci yilif ndi rek. te war a wax ak ñoom war ngaa wax ak ñoom la nga war a wax ak ñoom bu ñu ko defee euh, yow sa jaan wàcc na bu ñu ko defut loolu yow seen seen bopp la ñeel kon ñuy ñuy santaat yàlla bu baax tey santaat bokk taalibe yi di leen sant ci barab bi ngeen teew ci kër toujours suñu àll yi mii nga xam ne moo fi teew suñu abo euh, ñu leen sant yéen ñëpp yi fi teew di suñu bokki bopp yi ñu suñu maam moo tudd na léegi muy wax magas maam suñu affaire yi ak njabootu njaayeen gi fi teew ak seex si looyu ne jëpp kenn ku nekk suñ gis na sa taxaw euh, sëñ sëñ bi gis na gis na gis na li nga def ci sëñ Tuubaa ñu ñaan suñu borom fayal leen ko ndax jullikaay yi bari nañ ngeen tàmm jullikaay bi ngeen tees tees fi bu ngeen fi dikkee war ngeen fi wax war loo xam ne ko dégg ngir ngeen yóbbuloo ko ëllëg ndax sama borom dimbal leen te dimbal ñu ñëpp sëñ bi ñu ngi lay baax Mbàkke ci turu sëñ Aliou ci taxawaay ci bët gi nga taxaw ci yoon wi képp yëpp gis na si taxawaay ndax li ëpp solo ci yoon wi ndax mel ne jox nañ ko mooy alxuraan tool tool bustaani kitaabullahi la waxoon toolu suñu tubaab la ku ne yaay kaay doo nekk jëwriñ ja yàlla nee na waaye yàlla na yàlla jàppale te dimbal la yàlla boo ci am ndog yàlla boo ci am ndog jàppale nit ki day day day rafet njort te nit ki day day baaxal xolam xol mooy doomu aadama parce que doomu aadama bu xolam baaxee bu xolam baaxee dara dara bëntut ndax yaa laa ñu alayhi salaatu wasalaam ni ko mu ne am lu ci am lu ci am lu nekk ci doomu aadama loo xam ne baaxee lépp baax bu mënee lépp bon ñu ko looy la mu ne mooy xol xañaan baaxut wana sax naa maa fi suduri min nañ koy xol ci boppam bu ñu leen kañaan gën a naafeq gën a gën rëy loolu ci boppam mooy mooy gàllankoor doomu aadama koy gis mu am problème ci àdduna rek na xol xolam ku sa xol raxal rek na xam ne sa lépp da baax ku sa xol mel neen tamit kooku sa problème boppam la ndax yàlla wàcc ab continent wàcc am ab dëkk waaye fu tuut lay wàcc mooy xol bu sell te xol bu sell kat yëpp moom moom ci la nit ki nekkee doom ab julit ci la nekkee ab taalibe kon lii nga am ñun mbàkke yéen la ko lu waaye am ci lu baax bi yéen ko ko mbokk mu ne la bu defee ak jaral wala lu baax ni ko ñëpp yéen ko def nga ko te xam ne defaloo ko boppam ñëpp lu ko defal bu baaxee ñëpp la baaxal waaye bu yàqul ñëpp la yàqul bu kenn ko ne gëmee loolu rek ndax dafa mel ne ab tabax booy tabax mool yi bu tabax bi foqee ci bi benn mool damm mool yëpp mën na rës kon lépp baaxee ñëpp mën baax suñu muntaxaa mii ñi mu tax woote ko ñëpp ko jàppale ñi amoon daara yéen ñi xam ñi nga xam ne am ngeen daara ngeen farluwaat ci daara yi ñi amutoon daara dañ jéem sampi daara gone yi ndaw leen yar leen tarbiyee teg leen ci yoon woo xam ne ëllëg si biir bu ñu fi nekkatu ñu ñi ñoom ñu wërali ndax la seen way juróo daan def muy Cheikh Amadou Fadal nga xam bi mu daan joxee ku mokkal alxuraan bi du kaamil mu yóbbu lu mag loolu ci boppam war nañoo di euh, yoo xam ne mën na ko di si jawaïs yoo xam ne ku mokkal alxuraan ndaw yi rawatina njabootu sëñ bi ñu ñu ñu defal leen lu mel noonu loolu jublu ci woon dara lu may nit ki nga nga boobu dem màkka ni ni mu mel sax melutoon melu ko boobu la gën a am xiima ci ni ko ñu gisee woon ñoo di sàngam dem màkk bu di kenn su bañ a or ñu naan si alal ji nangam nga nga dikk loolu si fa lu ko def ngir ngir ñaaxee ko gone yi ngir ñu gën a góor gën a gën a gën a farlu ba defe naa yéen ñi nga xam ne yëpp njabootu ngeen def ngeen ko te yàlla la mu waxoon ci yéen yàlla defal ko ci yéen tim doon dégg ko ci saa ci waaye defoon defal ko ci waatee kon ñu ngi koy yàlla yàlla ñu bopp ñun ñëpp war nañu cee taxawaat soññaat ci suñu njaboot soññaat ci suñu bopp grâce yi moom moo fekk jamono moo fekk Sëñ Tuubaa loolu la santaane ñun ñëpp nañ ci jëm suñu suñu itte te nit ki bu jàngee rek li mu bëgg dana ko mën a am te jàng bi ci ëpp solo sëñ bi waxoon nañu ko ci masaali ko jinaan wa afdalu ulum bi itlaaxi tawxiid rabbina attifaaxi wa baxduhu tafsir li quraan yi suma xadis xaaloo ba day naa ni defe naa noonu lañ ko waxee doon suma jumut ndax boo gëjee yafar boo gën a boo gën boo gëjee nafar rek yu bari mën ngaa fàtte te daa mel ne temps na ba ba war a yër yërtuñ ko kon mbàkkee ñi ngi leen sant baax di sant suñu bokk fi teew yëpp rafetu seen jotaay bi baax a baax ndax ay mbokk ngeen waaye li ngeen bokk ak ñun bokk ngeen ko ñun ak mbokk nag moo lu ñu bokk rek ay nit buñ buñ dekkee benn ku jóg ndax fii ku fi gis tey rek xam nañ sëñ bi ñor la barab bi ñor la sëñ Fallou ñor na la tamit kon ñoon ñun jàpp nañu ñooy yéen yéen ñoon lépp lu ñu nekk dañ ci ànd yéen lu nekk ñu ànd ci yéen incha allahu taala ñii sant yàlla di gërëm ñëpp te ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla dëppale xol yi yàlla yàlla defal jukka yi ndax dëkk bi boo xoolee réew mi sax laay wax dëkk bi sax tubaab gi bëkki dem boo njaay rek ay attentat mi ci am yoo xam bëkki dem ci garage Ndakaaru bi ay nit ñoo maskaw yor ay ngànnaay di ko dóor ay fetal jël ay loolu mos sa xam ana ana sécurité bi ana ñu fi nekk ana ñu lu fi jariñ lu fi jariñ bi fi bi fi nekk gutoon loolu amu fi woon bi fi nekkee dañ ko war a xool ñoom loolu nag ñëpp dañ ko sooy ñu jàpp suñu fii toog ñi nga xam mooy gendarmerie police dañu war a jox seen liggéey jóg di patrouille guddee guddi du xool nit ñi tubaakat waaye lépp a ñëw lépp a ñëw lu baax da ñëw lu moom ñëw bi ñu xam ne indi xaj yi ci tubaab yi wisit dëkk bi ñu naan sëñ Abdou Lahad li mu def kenn musu ko def ci àdduna indi ay xaj tubaab mu ne xaj yi xaji Ndakaar yi xaji tubaab yi dañuy génn dafa am xaj yu nekk biir Touba li na xaj xaj Dakar yu génn xaj Touba yi kon nañ nañ gën a renforcer waat sécurité bi yokkaat nit ñaa ngi kenn mënut a nelaw guddi kenn mënut a loo teg ñu sàcc ko loo teg ñu jël ko nang ñu ngoo a nekk nañ ko xalaat te loolu jikko yi la bu ñu ko war a am junni junni noonu lay am ki war téeméer moom lay am ki am million noonu lay am yàlla yëmal wërsëg yi waaye kenn ku ne la tey sama moom dimbali ko ci te yàlla tax kenn ku ne la tey sama moom dimbali ndax wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa laa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwaan dimbali ci dimbali ci dimbalante am solo ndax dañu ne koo jariñ jariñoo ko ku ñàkk njariñ amul na ci àdduna puso sax li muy tuuti tuuti boo nee puso amul njariñ sànni puso sa mbuubu teppi ko da nga bëgg loo ko ñëwee puso li muy jariñ aw sëmi mënu ko def aw sëmi li muy ko def paaka ko def jaasi mënu ko def kenn ku ne la tolloo ñu def loolu ko wàññiwul dara bu ñu la defaloo la nga man da nga li nga bëgg da nga ko am kon nañu góorgóorlu bu baax te yara ndaw yi te joxaale jikko yu baax yi te ñu ko li ñu seetaan mooy mooy mooy euh, réseaux sociaux yi nga xam ne mooy xew yi ay whatsapp yeeg euh, facebook yeeg ay sew yi nga xam ne da yàq doomu aadama lu baax ci naam waaye du banañ ci mel na nag ban gi sax ëpp baax gi boo xasee tër ki si dara ubbi benn fi benn benn fiis benn benn kii du ñu koy waxee euh, benn ah, ah, ñu koy waxee sëñ bi ah benn paas waaw nga ubbi benn paas gis dara loolu day di mel ne seytaan bi xëcc sa xol bi ñëw ci loolu fexeel ba ubbi euh, siddu xam-xam paasu xam-xam wala paasu euh, ragal yàlla wala nga paas boo xam ne sax léeg-léeg am yoo xam ne génne ay bàmmeel di génne ay nangam yooyu nga doon xool di ragal ci ndax bàmmeel lu ragaloo si bi lu toll ak une suuf mu wàq nit sa moroom jàmm lu mu tudd gën a centimètre trente centimètres trente euh, quarante centimètres lay toll ñu dugal ci doomu aadama tëralee ko wet faatu sax même ku nit ko faatuwut nga dugal ci pax donc tëralee ko wet googu mënut a jóg kon tëdd bon tumaa ñu takk say loxo takk si tànk dugal ci pax moom yi mun ne saxal leen ko ñu suuf ci ginnaaw suuf si kanam ñu bës kos yi bakkan bi tegu ci kos yi li nekk ginnaaw nekk ginnaaw ñu wàcc lu mat une tonne suuf si kaw bis boobu di ko fàttali bu baax loolu bu ko demaat du fàttali rek naa dem ba ba ba xalaat du def leen lu ñaawti ana suñu maam ya ana suñu bàyyi alxames bi lu wees rek dama nañ fi jolof siyaare ji suñu maam ji yoo xam amati ñang nga xam mooy wujjee soxna aw bu so daanaka ñaar téeméer at am na ko fa ma gis ay sëng rek ko wër naaj wu tàng jër ñun bañu asi ci lañ toog waaye tàngoor ñu bëgg a rey ngeen kii mën a waaw xool ci ñaata àll fi tëdd moom te dara wër ko woon ana ana ñu tëddoon ba ba ka njëkk a njëkk a tudd xaw ma xaabil loo xaw ma xaabil ka njëkk a tëdd boobu adamu génn gud min ha xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum suuf kii jël yàlla bind ci lañ delloo ñëpp lañ jëm si waat kon nañ ñu waajal biir suuf si ba ñu dañu waaj ci kaw nekk ci kaw suuf si waajal ko bala ñu dugg biir suuf si ndax bis boo xam ne kuy wëttu yow tool saraay bi faaloo min xuwwati wala nasri euh, bis boobu war mën naa mën naa bàyyi xel lool waaye nit ñi dee màmm jëm ci àdduna jëm ci bànneex jëm ci yoo xam ne dara xamuñ ko amuñ njëriñ te yooyu ci boppam rek bala ëllëg nga fàtte ko fii fii li ñuy wax lan lan lan lan lan trois mille 33 000 ñun ñi ci kaw suuf si bis tey bii duñ ci àdduna du fekk kenn 33 000 cent ans rek rek la cent ans kanam ñi kenn ndax ñëpp ñu am nañu 50 ans 60 ans kon nag dañuy xam ne loo xam ne mu du ma junni at du ma ñaar même bu na yaari at sax day jeex ah te jëndee addu adduna alaxira dara ci àdduna jël ko man baa nuuran bi du yab say bu ñu la ma àjjana nga jaay àjjana kat suusaa ngi nii bis sa dem tepp suuf ngay ngay teb gi teg fee muy bis yow ci àjjana da nga mës a génn àjjana ndax dana jeex kon li barab bi nga xam du jeex yóbbu fa tam fi fi nga war a fàggoo fii li du jeex ngay fàggoo mu jëm ëllëg benn sallallahu ala muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad salim la am na benn salaatu boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko wax ci foosul mu teey mun a jàmm ba ko wax ñeenti yoon sans borom golal la ci sawara loolu danaa ko baaxee suñu bokk taalibe yi ndax ñu ñëpp bëgg nañ ñëpp ñu ba àjjana mooy laa ilaha illa sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allahu akbar loolu yomb na ñeent yoon boo ko wax yàlla jégal la ah te alaxir da ñëw te yàlla lim digle lépp lépp lépp laa ilaha illa allaahu sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allahu akbar laa ilaha illa allaahu sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allahu akbar laa ilaha illallahu sayidina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi allahu akbar waaw loolu ku ko def rek dina gis mu ngi àjjana ma di ko laabiri sama bokk yi ndax temps dafa cher te dangeen bàyyi dara def dara bàyyi ngeen bàyyi seen kër ya bàyyi yëpp sareet yeeg oto yeeg yëpp farax farax yi ñëw lépp dara wóoru ci ngeen bàyyi ko ñëw fii bu ngeen fi jógee war nañ leen jox loo xam ne nga naay loo xam ne bu ngeen fi jógee alsiba dañ ko jariñoo ñun nag bu ñu jàngatul xul onso bi falaxi duñu xam ne asal kiñaan am na yàlla daal li ñuy ñaan lépp lu ñu leen waa dafa jox ñu ko da ko jox kooku ñun foofu lañ nekk te yaakaar nañ ñëpp jëf lañ nekk dem ndax képp koo xam ne Sëñ Tuubaa bi ngi sa xol doo àndi ñoy kenn sa xol loolu laa ja loolu la gëm ni moom Sëñ Tuubaa moom ku nekk sa xol ndax xëyu leen moom Sëñ Tuubaa xëyutul leen leneen li ngeen mas naa wax sëñ Modou Diaw Paax Modou Diaw Paax war ngeen sant yàlla sëñ Modou Diaw ne ko alhamdulillahi rabbil alamin mu ne ko waxale santaat yàlla moo ko ñetti yoon mu ne ko waxale alhamdulillahi li si hadana li haasa sant yàlla ci kii joxañ boppam wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaanaa Allaah bu fekkee suñu tubaab jiwal ñu duñu am duñu am jub kon suñu maam li wax léegi ne nañ jël suñu yàlla gi suñu lépp jox ko sëriñ bi sëriñ bi daf ñoo ñaana yàlla lu ñu kenn mënu ci ñaanal waajal ñu foo xam ne kenn waajal ñu foon bu ñu daata judd afawtu rabbi xabla aadamin jala kullu talaamisi wala aqbala loolu ku kuñ ko defal nga avant ngay judd àdduna sëñ bi bul yàq bul yàq sa bopp beneen bi mu ñaanal ñu kaaraange kaaraange Sëñ Tuubaa kuy dugg amutoo problème yaa rabbi ij'alil muriidi maan fii xisnikal asiim wa samnil maa boo nekkee malik jamii'ahum nufuusuhum bi laa see yaduru waaye wa masaa yaqbala wa masaa yaqbala nag mooy nangu soo jëf rek kon ñun suñu jëf yëpp buñ noppee nañ ko dugal ci jëf sëñ bi si laa daana wax ne Sëriñ Tuubaa day booy dem ci war a ko sax fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa daanam yàqu te lu ciy jariñ subhaanahu wa taala yàlla ñu ko ñëpp lu ciy dëng dëng wala yàqu-yàqu nañu xam ne Abiy Mbàkke mi rek waaye ki jot loolu man dama si ànd euh, lépp sa sa laa waxee euh, ndax amu jun ñu bu ñu xasee bu ngeen te xasee teew rek ñun ñu ngi nii ndax yéen ñun ñoo yem waaw lu ñu wax ci yéen rek suñu bopp lañu wax kon ñu ngi leen ñaanal mbàkk yéen suñu kanam suñu borom bàyyi leen fi yàlla gis ci lu ngeen xebet ñu fas yéene nekk seen taalibe bi bàyyi rek euh, jël suñu lépp teg ko seen loxo ngeen nekk suñu kilifa fa suñu yéene am ay moom suñu lépp jox nañu ko rek te génn ci suñu bopp tamit nag génn ci attaan damay wax ne murid dëgg-dëgg bala moo doon saadeex salabo ixtiyaar da koy def ci boppam julli tànn ci bopp fekk yaa ngi tànn sa bopp rek sëñ bi war naa def nanga war naa def déedéet nga jébbalu bàyyi at boo xam ne murid jàng def ba tey loolu war nañ ko seer suñu bopp ñun mooy jox naa sama bopp adduna adduna si demaguñ alaxira nga bëgg a weddi adduna xaat yow sëñ bi ñaari junni bi ñu seq wóoluwoo ko bàyyee ah sëñ bi doo def nanga bàyyi nañ ko xel sëñ bi seen koom yi nga am sëñ Bamba ko moom nañ ko jox sëñ Tuubaa te bàyyi caaxaat yi waaye yaakaar na suñu tuwi àdduna alaxir bu su boo faatoo suñ mbir ñëw bu fekkee am nga ngeen suñ mbir ñëw bu am tëkk ceet suñ mbir ñëw dix mille kon moom àdduna alaxir a garaaw àdduna dara ay pexe rek la ku sa bopp waaye fee xam ne moom kenn ku fa am nga ndimbal ko am ko suñ tuwi kon bu ñu joxe suñ tuwi suñ bopp nañ ko nañ ko nañ dëggal ci wax te te bañ ko bokk dara bañ ko boolee dara loolu laa am na ci maa ngi jéggul ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.